ok alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi santaat suñu boroom subhanahu wa taala ci tawfiix gim ñu wërsëgal ñu mën a daje ci ab néegam di jàng la nga xam ni mooy ab téeréem ci niñ leen ko yàgg a fàttale ma bokk ci jëf yi gën a kawe yu jullit di def wasiila digganteem ak boroomam ngiree sàkku la nga xam ni moom mooy ngërëmam ñu ngi nekk ci saaru màgg wi di suuratu nuur nga xam ni war na famille bu nekk di tegginoo teggin yi ci nekk waaye war na it société bu nekk di tegginoo teggin yi ci suñu borom yàlla tëral nga xam ni dana tasaare ak leer ci seen diggante ñu ngi ci tey jël aaya 44 bi fi suñu borom di waxee ni yuqallibu allahu leyla wa nahaar insha allah bu dee Cheikh Ousmane pare na بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنبرم مني يقلب الله الليل والنهار دنا ولبتي سنبرم لي دي غدي اك بچك ان في ذلك لعبرة لأولي الأبصار نكنا ci lolu day lii di xalaatiin ñeel boroom gis-gis yi wallahu xalaqa kulla dabbatin min ma yàlla moo bind lépp luy dox cosaanam nekk ndox fa minhum man yamshi ala batni mu am ci ñoom ñoo xam ni ña ngay doxe ci seen biir ba wa minhum man yamshi ala rijlayn am ñoo xam ne dañuy doxe ca seen kaw ñaari tànk ya wa minhum man yamshi ala arba am ci ñuy doxe ca la nga xam ne mooy ñeenti tànk yaxluqu llahu ma yasha yàlla mooy bind lu ko neex inna allaha ala kulli shay'in qadir seen borom yàlla day bépp bépp mbir ku ca am kattan la laqad anzalna ayatin mubayinat ñun de wàcce nañ ay aaya yoo xam ni yuy leeral nañ ñi la wallahu yahdi man yasha yàlla mooy jubal ku mu neex yàlla mooy jubal ku ko neex ila sirati mustaqim di ko jëmee ca yoon boo xam ne yoon bu jub la mi ngi noonu bokk julit suñu borom dani moom mooy wëlbati la nga xam ne mooy guddi ak bëccëg yàlla mooy wëlbati la nga xam ne mooy guddi ak bëccëg ca mooy lépp luy xew ci guddi mooma lépp luy xew ci bëccëg mooma wëlbati googi dem nañ ba jamono dox doomu aadama yi di jaamu li ñuy tuddee science di jaamu seen xam-xam bopp ca la suñu boroom wane doomu aadama ndekete suuf si ñu toog benn bal la buy wëndeelu ci jaww ji benn bal la buy wëndeelu ci jaww ji kan moo koy wëndeel muy suñu boroom mu am beneen bindaa fanam bu ñuy tuddee jant mu tiim ko li scientifique yi wax seen diggante nekk na cent cinquante millions de kilomètres bal boobee su ko borom bi wëlbatee ña féete ak jant bi nekk seen digg ba cëkk ña féete suuf nekk seen guddi tey jii boo téléphoné woon fu mel ni li nga xam ne ni moom mooy japon ñoom tey boo demee presque ñu ngi seen deux heures du matin wala trois heures du matin seen digg guddi soo téléphoné woon léegi États-Unis ñoom dix heures ci suba mi ngi doog a jot bal boobu mbokk kan moo am kattan di ko wëlbati muy yàlla jalla wa ala moo am kattan indil ñu bëccëg indil ñu guddi looloo tax mu ne qul araaytum in jaala allahu alaykum alleyla sarmadan ila yawmi alqiyama man ilahun gayru llah yatikum biddiyaa mi ngi noonu afala tasma'un su doon yàlla daa bàyyi ba tey jii dëkk bu mel ne Sénégal ñu bàyyi woon bi mii di jot rek mu bloqué suuf ba ila yawmi diin ana kan moo mën a indi la nga xam ne mooy guddi kenn mënu koo indi le contraire mooy ba tayit araaytum in jaala allahu alaykum annahara ila yawmi alqiyama man ilahun gayru llah yatikum bi laylin taskununa fii su doon yàlla dafa saxal la nga xam ne mooy bëccëg kan moo mën a indi guddi waaye bu saxaloon guddi ba ila yawmi alqiyama it kan mooy mën a indi bëccëg mbokk kooku du kenn ku dul yàlla looloo tax suñu boroom ci xadis bu yonente bi alayhi salaam nettali ñu tudde ko xadisul qudsi mu ne yuzini ibnu aadam yasubbu dëhr wa ana dëhr uqallibu leyla wa naar wa nahaar doomu aadama day du denc di ma lor yaa ngi dégg al aza mooy wax ju ñaaw rek donte ne yàlla kenn mënu koo lor waaye doomu aadama du denc di jëmili ci yàlla wax ju ñaaw lu tax mooy day rëbb temps hoo sedd bi bu dee tubaab bi ñu ne merde oh tàngaay bi wax lu bon lu ne ñu wax su yàlla ngelawalee bu ko defee ñu ne ngelaw li nangam su yàlla indee neige ñu ne nangam nangam mbokk loolu ñàkk a xam borom bi la ab jullit day xam luy élément buy dox ci guddi wala bëccëg ndaw la bu yàlla yónni ndaw la bu yàlla yónni lan moo nekkoon pexe kon la nekkoon pexe mooy yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam heure bu ngelaw li ma san rijj li muy wax allahuma inni asaluka xayra hadihi rih wa xayra ma fiha wa auzu bika min sharriha wa sharri ma fiha ay yeneen riwaya min xayri ma fiha wa xayra ma ursilat bi wa auzu bika min sharri wa sharri ma ursilat bi e yàlla ngelaw liiri di maa ngi lay ñaan yiwam ak yiw wi nekk ci biiram zeng yi muy yëkkatee yu kenn xamul ak la nga xam ne da nga koo yónni mu jëm fa yiwu la nga ko yónni mu jëm fa di la ñaan nga musal ma ci ayam ak ay bi nekk ci biiram ak ay ba nga ko yónnee mu jëm fa mbokk loolu ngay wax ci ngelaw bu sedd bi taree loolu ngay wax yàlla yàlla ñu may yiwu sedd bi ak yiw yi mu àndal may ñu yiwu tàngaay bi yiw yi mu àndal yiwu lay bi yiwu neige bi lépp nga xam ne yàlla jël wa ala moom mooy ki nga xam ne nii moom mooy dogal ah lu ko neex suñu borom ay wëlbati buulam guddi jot dans deux heures de temps suñu guddi jot bu guddi jotee borom bi subhanahu wa taala nee na ñi am gis-gis ñoom dañuy duñu deñ di xalaat ci guddeeg bëccëg looloo tax suñu diine ji fu ñu yéegee ne jant bi sonn rek bilal daal di nodd allahu akbar allahu akbar xam leen ne yàlla jeexal na bëccëg bi indi na guddi jullit ñépp dem waaj daal di ñëw taxaw ci kanamu borom bi daal di julli la nga xam ne ni moom mooy julli timis ak la ca aju ci ay nawafil ak la ca tegg ci ay askar guddi gaa ngi noonu guddi gaa ngi noonu ba bëccëg jolli fajar xar di wane ne bëccëg gi ngi ñëw bilal taxawaat allahu akbar allahu akbar jullit ñépp jóg waaj julli la nga xam ne mooy fajar ak la ma àndal ci nawafil ak la ma àndal ci ay askar noonu ñett la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon def heure boo xamee ni nii fajar jot na mu ne a asbaxna wa asbaxa almulku lillah walhamdulillah la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم إني أسألك خير هذه اليوم خير هذا اليوم وخير ما فيه وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه يونت بي صلى الله عليه وسلم heure bu suba ma san jot bam yeg ni fajar jot na day wax ni ah suba day jot na jot na ànd ak nguurug yàlla wa asbaha al mulku lillah ay li nar a xew ci suba gi yépp ci moomelug yàlla la daa ji ne sant yépp ñeel na yàlla daa ji ne la ilaha illallah kenn yeewul ñu ko jaamu ko dul yàlla moom doo nga amul kuñ koy bokkaaleel moo moom ngóor gi mi ngi noonu moo moom cant yi ca moo am kàttan ci lépp ey yàlla suba gii ñu dugg si maa ngi lay ñaan yiwam ak yiw wi ci nekk di la ñaan nga musal ma ci ayam ak ay bi ci nekk loolu la yonent bi daan wax suñu masaan dem ba jant bi so léegi dugg nañ ci guddi mu répété la mu waxoon sànq lan lay wax booba ba am sayna wa am sal mulku lillah dugg nañ day ci ngoon gi sax nañu ngoon gi nekk moomeelug yàlla wax la moo xoon walhamdulillah la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu almulk wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma inni as'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla ma fi hadhihi al-layl wa xayra ma fiha wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha ba suba jotee dana yàlla maa ngi lay ñaan yiw ak suba gii ak yiw wi ci nekk bu guddi jotee li muy wax maa ngi lay ñaan yiwu guddi gii ak yiwu li ci nekk mbokk yow mi jël yonenti sallallahu alayhi wa sallam muy soroyukaay yëg yëg bii nga war a am ci temps ni muy wëlbatikoo ci kattanu yàlla ca suñu borom yàlla ci bëccëgam yi ca lay booleel xéewalam ci bëccëgam yi ca lay booleel mbugalam képp ko alku ca bëccëg nga alku képp ko am xéewal ci bëccëg nga ko am wala nga am ko ci guddi su ko defee yàlla subhanahu wa taala moom nga xam ne mooy dogal nga war a am yëg-yëgam ñaan ko mu may la loolee mbokk suñu borom bàyyi loolu nga xam ne daf ñu doon wax sur le temps ngi noonu gannaaw ba nag mu ñëw ak ñun ci ay mbindaa fanam mu ne moom moo bind lépp luy dox basam nekk ndox ngi noonu lépp loo xam ne nii am na ay accouplement xam ngeen ndox muy jóge ci ko góor ko dem ci ko jigéen ko gàncax gi it am ndox mooy tawe ko asamaan daal di leen di saxal kon yàlla lépp mi ngi ko bind ci ndox rawatina daaba yi dox mu ne am na ci ñoo xam ne bu ñuy dox seen biir la ñuy doxee masalan jaan yi gaa yi jaan amul tànk waaye jaan danaan joox fii ay ponkol dax ko mënuñu koo jot am déet ci amul benn tànk yam si àlla bat ni loolu di kàttanug yàlla gannaaw ba am ñoo xam ne dañuy doxee ay tànk mu yow doomu aadama ñaari tànk nga yor waaye day lay gis it doomu aadama bu borom ñeenti tànk dàq mënu ko jot ak ñaari tànkam yooyee mu am ñoo xam ne ñeenti tànk lañu am te mooy lu ëpp ci bàyyi may yi nga xam ne nii du ñu naaw ca ñëpp ñeenti tànk lañu am borom boobu nag mu ne mooy bind lu ko neex noonu it la bind ñoo xam ne dañuy boole di dox di naaw mu boole ñoo xam ne nii mën nañoo di dox nii di battar ñu ko waaye di fii encore ci biir géej gi wala dex yi yaxluqu ma yasha lii it mbokk daf ñuy jàngal ci ne doomu aadama bi war nay waaru ci boroomam ci kattanam ci ni muy bindee borom bi nee na li li ma bind ci asamaan yi ak suuf borom xel yi day ñoom ñi ngi ci xalaat ca heure buñ ko gisee ne yàlla bindoo li ci neen amul benn mbindaa fan bu dul mi ngi lay wan kattanu yàlla xikma yàlla yërmande yàlla ñaata million d'espèces ñoo nekk ci kaw suuf yoo xam ne benn bokku ci ak sa moroom mi ngi noonu mu nekk nag lu metti lool ba suñu jamonoy tey jii ba suñu jamonoy tey jii ku ci am xale bu ku ci am doom bu nekk lycée ci classe au sixième yeeg cinquième yi gala waay xoolal ay kayem ba tey liñ ñuy jàngal mooy say-say bu bon ba Darwin ak ñu mel ne moom lañ gëm muy l'évolution le hasard et la nécessité moom la ñuy jàngal suñu doom yi ba tey mooy yàlla amul adduna hasard moo ko créé mi ngi noonu am na au commencement ay larve yoo xam ne développé wu nañu di raam ba mujj ñu développé ay tànk ba mujj ñu kaza wa kaza loolu la ñuy wax seen évolution waaye Darwin yaa mën a kàcc ak ña la farak yow waaw bu dee ne évolution moo am commencement espèces yi daan jóge ci ndox yi dañ doon raam gannaaw ba développé ay tànk waaw jaan yi di raam depuis des millions d'années lu tax jaan amul tànk jóg taxaw évolution doomu aadama yi am ñaari tànk depuis kenn xamul lu tax defuñu ñeenti tànk loolee mbokk amul te alhamdulillah dem nañ ba ay scientifique yoo xam ne raw nañ Darwin téeméeri junni yoon ndax jumtukaay yi ñu am Darwin am loolu sa un centième dajji nañu complètement loolee ñi nga xam ne dañ koo jàpp ne doomu aadama yi dañoo jóge ci hasard ak jóge ci ay goloog kaza wa kaza waaye malheureusement ba suñu jamonoy tey suñu état yi osé wuñu njàngin boobu ñu dindi ko ba tey loolu la ñuy jàngal suñu doom yi te mooy nit mi ngi jóge ci hasard jaar fii jaar fii ba nekk golo à partir de golo nag ci la jóge nekk doomu aadama bokk loolu c'est très dangereux borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne xam leen ne yàlla mooy ki am kattan ci lépp lu mu mën a doon yaxluqu ma yasha mu lay won ne yéeféer yi nga xam ne dañoo weddi ne yàlla subhanahu wa taala dana dekkal ay jaamam ñooñee kenn gënu leen a alku ndax pour ñoom mooy lan li dem ba nekk poussière nu muy dekkiwaate suñu borom nag ne man mi bind nii des millions d'espèces yoo xam ne benn bokku ci sa morom am naa kattan la dee woon ma dekkal ko ca borom xel war naa nangu loolu gannaaw ba nag suñu borom mu ne aaya yaa ngi noonu leer na nañ waaye ndax aaya yu leer mooy jubal déedéet mbokk julit aaya yi lu mu leer leer alquran ji lu mu jolli jolli amul kenn kuy jub lu dul ko yàlla dimbali ci ak njub yàlla na yàlla jubal ñu jubal suñu njaboot mi ngi noonu Cheikh Ousmane barakallahu fiikum suñu borom mu ne naafiq yi day wa yaquluuna amanna billah ñoom day ña nga naan gëm nañu yàlla wa bi rasul gëm nañ yonent bi yàlla bi wa ataana ca topp nañu it summa yatawalla fariqum minhum gannaa ba mu daal di dëddu wëlbati ko lenn ca ñoom min baadi zalik gannaaw wax jooju jépp wa ma ulaika bil muminin waaye ñooñu day nekkuñu ci ñoo xam ne ñu gëm lañu wa ida duu ila allahi wa rasuli heure bu ñu leen woowee jëme ci yàlla ak yonente yàlla li yaxkuma baynahum di dañu atte seen diggante ida fariqum minhum muridun ci lool rek benn kuréel ca ñoom nekk di dummooyu wa in yakun lahum alxaq su dee nekk nañ ñeen leen ak dëgg nag yaatu ilayhi muzinin ñu dikkal atte boobee doon ñuy wommatu afi qulubihim marad ama ndax feebar daa nekk seen xol ya am irtaabu wala dañuy sikk sakka am yaxaafuuna an yaxiifa allahu alayhim wa rasulu wala dañoo ragal muy jeng ci ñoom kii di yàlla ak ab yonentam bal ulaika humu zalimun li am kay ñooñu ñooy toñkat yi mi ngi noonu mbokk lii mooy suratu nuur ci bind yu jëkk yi suñu borom wax nañu ñaari melokaan ci ay jaamam mooy jullit yi nga xam ni seen xol leer moo ca nekk seeni wax seeni jëf place yi ngi leen di fekk ca jàkka ya lépp leer la nuurun ala nuur gannaaw ba mu wax ñu yéefiir yéefiir yi nga xam ne seen xol ya daal lëndëm seen jëf yi lëndëm place yi ñuy daje lëndëm zulumaatun baaduha fawqa baad mu ñëw nag ci ñi gën a compliqué ci doomu aadama yi ca mooy naafiq boo ko naafiq mooy kan mooy yéefiir bi ñëw sol mbubbum julit ànd ak julit ñi di wax li julit ñi di wax ci gëmul borom bi subhanahu wa taala mu ni suñu ñëwee dañuy feeñal ñun de gëm nañ yàlla gëm nañ ñeneen ci yàlla te ñun day daan topp ndigalu yàlla mbokk loolu mandarga naafiq la koo gis mu naan ci télévision bi ah non moi je suis un musulman mbokk un musulman n'a pas besoin de prouver qu'il est musulman am déet suñu intellectuel yi koo ci gis mu nekk ci kii bi naan non moi je suis un musulman rek mbokk del bàyyi xel ci moom mbokk julit xaa du xaar ñu naan du waxal boppam man julit la kon naafiq yi loolu lañ doon def maadaama ñu bañ nit ñi xam nekk seen biir xol mbooloo muñ toog daañ feeñal na ah ñun day yàlla rek lañ gëm ñun day yeneen ci yàlla rek lañ gëm ñun day ah nangam ak nangam ca lu yàlla wax ñu def waaye borom bi mu ne gannaaw ba boo xoolee seeni jëf da ngay gis ni buñ jógee jëf lu safaanoog la nga xam ne moom lañ doon jëf ca bokk na ci ay mandargay naafiq heure bu waxee day fen lu mu digge wor buñ ko wóoloo mu wuruj bokk na ci na may mandargaam dañu dem ca fa julit ñi demlu ca jàkka yi ak yu demee noonu ay wax ci làmmiñ weddi ci jëf ca loolee mbokk xam leen ni diine niñ la ko waxe sànq diine ñetti mbir la li jiitu mooy looy gëm sa biir xol di ko wax ci sa làmmiñ di ko jëfe ci say cër képp ko jàpp ne man kat diine daal man sama ngëm sell na sama xol baax na la ngay def nag nga def ko ba pare jàpp ne ah non yow jullit bu baax nga comprendre luy diine yal na yàlla yërëm suñu mbokk ba oustaz Alioune Guèye nga noonu ba kon ndaw lu xëroon lool ci tasaari sunna ci Sénégal ngi noonu toog na fii ma toog benn conférence di nettali benn góor koo xam ne dafa gis benn jeune mi ngi sol seen dàll kilométrique yooyu takk benn jaaro sol benn jaget karooga mu def ko kenn xamul mu dab ko ne ko ah sama doom yow julit nga mu ne ko ah papa julit laa kay mu ne ko mais doomu julit du du mel nii nga mel mu ne ko papa mais xol bi rek moo am solo mu ne ko nag loolu moo tax ma dab la xol bi am solo bu sa xol baaxoo nekk xolub julit du nangu nii nga xam ne moom nga solo mbokk loolu di wax bu leer mooy doomu aadama lii nekk ci biir xolam mooy feeñ ci ay jëfam su ko defee képp ku jàpp ne yow mën nga lu la neex def waaye sa xol daal rafet na boo ko xamoo lan mooy xol bu rafet xol bu rafet day feeñ ci wax ju rafet day feeñ ci jëf ju rafet moo tax suñu borom mu ne yaquluun amanna ata'na waaye gannaaw ba suma yetta walla fariqun minhum borom bi ne wa ma ulaika bil mu'minin ñii ñoom bokkuñu ci jurit ñi lay preuve mooy suñ leen woowee kaa ñu dem ñu attewoo li yàlla santaane bu ko defee ñu daal di dummoo yu mu ori doon fii mooy dummoo yu xol seen xol du ko nangu fay mu wax ne yettawalla mooy jëmm jaay wëlbitiku mu ori doon xol ya duñ ko nangu dakkuruñu ci naan nañu attewoo lislaam xanaa lu dul fekk ne ñoom seen intérêt da caa nekk mooy atteb lislaam ba dafa leen arrangé waaye bu dul looloo duñ ko nangu mbokk loolu suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na ñii mel nii xanaa seen xol feebar da ca nekk wala dañuy sikki sakk ci la nga xam ne muy seen diini wala dañoo jàpp ne yàlla kat bu ñu attewoo ay luwaam dafay lor doomu aadama yi jéng ci ñoom suñu borom mu ne tigi tigi ñi rek ñooy toñkat yi loolu moo tax ba ñu ngi woo képp ku am responsabilité ci réew mi di ko fàttali yow monsieur le député mi voté loi yi président bi joxe ndigal yi ñuy appliquer lu mu mën a doon nga la way nañu xam ni lii ñuy dund tey nekk na loo xam ne wóorul am ay julit lañu sunu parlement suñu palais de justice lañu waroon a atteew mooy li yàlla subhanahu wa taala tëral ay waay kuur delluwul woon ci yàlla nangulul woon yàlla ba jamonoy corona ji nga war ko nangul tey puissance étrangère yi nga xam ne tey ñoo ñuy dicter seeni loi borom asamaan ak suuf àdduna xam leen ne suuf si daa am borom waaye suuf bi du suufu Amérique du suufu Russie du suufu Chine suufa sunu borom la moo tax tey ilaa neutraliser mu àdduna yépp kenn déggatul tey avion de guerre kenn déggatul tey lenn lépp a ngi ne teg lu waral loolu mooy benn mbindaa fanam invisible bu kenn gisul la yàlla wàcc ci ñoom te moom rek moo ko mën a jëlee ñu naan la mi ngi rey des milliers et des milliers ca dëkk yi gën a mag grande puissance du monde fa la yàlla rey ñum ëpp ñu mu rey kon suñu borom bi indi ay loi ne kii njaaloo na ah mas na sëy rey leen ko sama ndigal la waaye ngalawaay nañ ko def kii sàcc na sama ndigal dagg leen loo xam nañ ko def su dee nangul nañ yàlla jalla wa ala loolee kon mbokk ku nañu bàyyi ci xel buñ ko bàyyiwul xel monsieur le président monsieur le le le magistrat monsieur le comme mën a doon maa ngi la may fii ak cinquante ans fii ak cinquante ans ñu yor pouvoir dans tous ces pays fii ak cinquante ans ñun ñëpp ñu dugg ci biir suuf am déet ñun ñëpp dugg ci biir suuf heure booy dugg ci biir suuf da ngaa bëgg ñuy defal la atteb yàlla ñu futti la sang la wadd la taxawal la ci kanamu nit ñi jullee la dem gas suuf suul la loolu atteb yàlla la kon it li nga xam ne bi ngay dund yàlla tëral ko mooy samay loi ngi atte leen ko mais loolu dañ ko war a atte woo loolee moom la borom bi subhanahu wa taala wax ne wa man lam yaxkum bima anzala allah fa ulaika hum zalimun noonu nit la waxaat fii bal ulaika hum zalimun loolu zulm la boo xam ne nii ñu ngi ñaan yàlla commencé ci man ak képp kuy dégg luñ ca man rek yàlla nañu yàlla jàppale bañ man koo dabantal mi ngi noonu Cheikh Ousmane خيرا سني بروم جل وعلا مني إنما كان قول المؤمنين نكون وخي نجم دي إذا دعوا إلى الله ورسوله بلين ووي جمي تي الله كبيون انتم ليحكم بينهم غريم أتسين ديجنتي أن يقولوا سمعنا وأطعنا ñun ñun day dégg nañu ci topp nañu wa ulaika humul muflihun te ñooñu day ñooy ña nga xam ne ñoo texe wa man yuti illaha wa rasula koo xam ne topp na yàlla topp yonentam wa yaxsha allaha wa yattaqi mu daa di toroxlul yàlla ragal ko ngir lam jiital cay bakkaar waaye it ragal ko ci la nga xam ne moom la dëgmal ci desitu dundam fa ulaika humul faizun ñoom day ñooy ña nga xam ne ñooy ña texe naafiq yi wa aqsamu billahi jahda jahda aymanihim ña ngay waat ci yàlla ca la gën a tar ca seen ngiñ ya la in amartuhum la yaxrujunna heure bu leen yenent bi digalee daan génn ànd ak moom jihaati qul la tuqsimu neel bu leen darul ngeen di waat taatun maarufa ak topp day lu ñu xam la inna allaha xabirum bima taamaluun yàlla day aji ñàkk kumpa la ci li ngeen di def mi nga noonu mbokk julit suñu borom ŋàññi na nafiq yi ak seen comportement feeñal ne yow julit nga la la ca neex ci julli ya ak aj makka ya yatu ilayhi muzinin ñu dikkal loolu ndax dëppoo na ak seen baneexu bakkan amma nag kay leen ñu atte woo ci rëb yàlla bi loolu moom ñu dummo yi wane ko gannaaw borom bi ne loolu day safoo naa naag na julit war a mel a borom bi nu julit war a mel suñ borom mu ne la nekkoon kaddug julit heure buñ ne koo kaay ñu dem yàlla ak yonentam ak atte ñu ñu naa ñun day dégg nañu ca topp nañu ca ñooñu ñoom ñooy ña nga xam ne ñooy ña texe loolu moo tax ba mbokk nañu delluwaat ci société bi nga xam ne yàlla séedeloon na leen ay jurit lañu nañ dellu ci société yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk waxuma woote ci ñu attewal islam waaye ndax ñu bari ci yéen dégguñu ki nga xam ne mooy malik maïs ñëw na ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayu mi yàlla yónni yàlla day seytaane man na ma ba dama njaaloo yonent bi dummayu ko mu dem ci beneen côté yi mu yàlla dama ne man mii day yàlla seetaan nattu na ma dama njaaloo yonent bi dummayu ko waaye nanguwul dem ba wax ko lu jege quatre fois yonent bi daal di woo ay jegeñaaleem kii dafa am lu nekk ci xelam wala dara laa xamuluñ ko lool de mu ne yow mi yàlla yun dara jotuma yàlla seetaane nattu na ma ba njaaloo naa dama bëgg atteb yàlla ñu teg ko sama kaw yeneen ci yàlla bi woo lenn ci ay ndaw ñu yóbbu ko gasal ko pax dóor ko ay xeer ba mu faatu radiyallahu anhu di yàgg ngeen dégg looloo mi ngi noonu ngeen dama kooku góor la ñu teg ci ay jamono benn jigéen bi ñu tudde alxamidiya ñoo ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ay yëm yàlla yónni sama ëmb bii day ci njaaloo la jógee seytaane mën na ma ba ma njaaloo dama bëgg ñu teg atteb yàlla ci man yonent bi dummóoyu ko mu ne jarul nga may dummóoyu wala comme li nga doon def malik li am yonent yàlla laa la wax man mi dama njaaloo fekk malik bañ koy rey ma sonn sëy soxna sëy ma sonn sëy yonent bi na ko waaw demal bu wasin demal bu wasin xanaa soxna si détermination ba mu amoon ba ñëw ci yonent bi temps boobu mu dem di wasin mënoon naa réccu waaye daa dem ba wasin indi doom ji ci yonent yàlla muhammad na ko doom baa ngi ni wasin na yonent bi na ko waaw nampal ko tuuti ba mu dëgër ndax rawatina kii doogoo am doom mais yooyu di jëkk génn ay antibiotique la ci ñeel xale beeg yu deme noonu mu dem nampal ko bàyyi temps mu ñëwaat ay yonent yàlla doom baa ngi nii dama bëgg ñu laabal ma yonent yàlla amul pexe ndax moo ëpp yërmande ci li yàlla bëgg waaye ndax ci yàlla bind mais ndax yërmandeem yegg na ci loob yàlla abadan mu woo ay sahaaba bokk na ci Xaalid ibn Walid ne nañ ko rey bañ demee ñu rey ko yeneen ci alayhi salaam di ko jullee lenn ci saxaaba yi naan ah waaw yu mu yàlla dañ koy jullee mu ne kii day xamu leen mu ne ak tuub buñ ko mënoon a séddale mën naa dugal mbooloo ci waa ansar aljanna te yonent bi kon seede ni nangu googu ñu nangu loob yàlla bañ teg ko seen kaw àjjana lañ jëm waaw gars yi ndax loolu yemoon a naag ñun ñi nga xam ne nii ñun daw sa bëgg a njaaloo dañ naan ko aw carte gi demal njaalool bu la neexee chaque trois mois ñëwal ñu visiter la ba xam dara jotul am dit nga continuer sa njaaloo nga nar a dee dem tabbi naari jahannam su ko defee loolu ñaari échantillon la ñoon wax rek ci ne ngallaway julit téere bi ñuy jëkk jàng Sénégal mooy wala yaxillu lahu an yafala fi'lan xatta ya'lama xukma allahi fii laxdari bis maam yi doon jàng mooy du dagan lépp ngay def dara lu dul nga jëkk a laaj lan la yàlla atte ci lii looloo tax yow xale bu jigéen bi sa baay dee na intellectuel ñu ne la waaw yàlla nee na alal ji nañ ko séddale trois parties la yaag sa frère sa frère na jël ñaar nga jël benn mbokk loolu da nga koo war a nangu xam ne alal ji du sa alal yu bàyyi alal yi yàlla la woon mu dénk ko sa bàyyi bi fi jógee yàlla moo koy dénkaane amma boo dee ne yow nangu nanguwoo loolu naan da ngay yéeg tribunal la ko wàcc mbokk xamoo leen muy diine xamoo leen muy ngëm yàlla suñu borom yàlla du tooñ kenn moo tax mu ne ndax dañoo ragal yàlla jéng ci ñoom déedéet yàlla lu mu atte rek dañuy xam ne noonu la jalla wa ala moo tax borom boobu subhanahu wa taala ni ñooñu nga xam ne nii day lu yàlla dogal ñu ne dégg nañ topp nañu ne ne boo bëggee xam ñu texe mooy ñooñu ca mbokk julit nga la waay xamal na sag texe mooy nga déggal sa borom dana metti nag de waaye boo demee ba yëg ne yow mii kenn dootu sa buur ku dul yàlla du sa bakkan du ma sàmba du ma demba kenn dong ngay topp ay ndigalam da ngay daal di am li ñuy tudde xalaawatal iman am caf ka ngëm yàlla goo xam ne borom xam-xam dañ doon wax naan law yaalamu abnaul muluki ma nahnu fihi min lazza la qaatuluuna ñii di doomu buur yi bu ñu xamoon caf ka gi nga xam ne ñi xam yàlla dañ koy yëg doon nañ jël jaas yi jéem a xeex ak ñoom pour nangu ko waaye loolu kenn mënu ko nangu loolee mbokk mi ngi noonu nga déggal sa borom nangul sa borom nangu ay dogalam borom boobu nee ne ulaayka humul muflixuun ñoo texe adduna alaxira ñooy texe borom bi nag ne ki topp yàlla topp yonent yàlla wa yaxsha allah yaxsha allah mooy ragal yàlla ci lim jot def ci ay bakkaar yattaqi ragal yàlla ci li des ci ak dundam te ñaar yooyu li dulit di boole mooy ragal na li mu def ci ay ci li passé ndax yàlla nangu na jaamu ga ndax yàlla jéggane na bàkkaar ya gannaaw ba digganteem ak boroomam deewagul lan mooy xew digganteem ak boroomam te loolu it mooy la borom xam-xam yi gënoon a ragal ci kaw suuf mooy naka la ñuy mujjee ñu suul aqiba yal na yàlla rafetal suñu mucc ya tax ki suñu borom yàlla nee na boo bëggee gis ku texe xamal ne mooy ki ku mel nii mu dellu delluwaat nag ci ñooñu nga xam ne heure bu yàlla ñëwee seen mbir rek aaya yu dul jeex la ci tawal muy naafiq yi ndax dañoo jafee xam dañoo jafee xam borom bi subhanahu wa taala nee na ñi ngi waat wa aqsamu billahi jahda aymanihim mbooloo mu ñu toog ña ngay waat billahi wallahi tallahi ah waaye yonenti waroon na woote jëm ci jihaad rek ah yonenti waroon na digle nangam waroon na digle ne nangam borom bi subhanahu wa taala nee na ñi ngi waat gën jaa tar ci waat ne lu yàlla ak yonentam digle ñu def bu digle woon ñu génn léegi jihaatu ñu dem suñu borom mu ne jarul ngeen di waat taatun maarufa yenn mufassiruna yi ni taatun maarufa mooy yiin seen topp gu ñu xam la topp yàlla topp yonent yàlla mooy làmmiñ seen topp yàlla ak topp yonent yàlla mooy li ngeen di génn seeni làmmiñ am ñu ko firee taatun maarufa ak topp jarul waat yéen kay nee ngeen bu yàlla ak yonent digle jóg leen def ndigal yàlla ak yonentam jarul ngeen nekk di waat jaru ko kon laa tuqsimu taatan maarufa su ngeen defee rek ñu xam ñu ngeen ñu xam ne yéen gëm ngeen borom bi subhanahu wa taala nag ne inna allaha xabirun bima taamaluun xamal ne yàlla mooy alxabir ci li ngeen di jëf mooy ñi ngeen di waxal mën nañoo xam lii génn seen làmmiñ waaye yàlla moom xam na la nga xam ne mooy feeñ ci seen biir xol ya lii mbokk kon dañuy gis benn page la ci suura bi nga xam ne mooy suuratu nuur nga xam ne gis ngeen ci ni mu commencé yéexalu jullit ñi ci li leen wër ci jaww ji mi ngi noonu ci temps bi wan leen la nga xam ne mooy dox dikk wan leen naafiq yi nekk seen biir wax leen ana ban comportement lañ war a am ne ak attey yàlla ji lii mbokk muy suratu nuur yàlla na yàlla leeral ci suñuy xol leeral ci suñuy jëf leeral ci suñuy bàmmeel leeral ci ëllëg yowm alqiyama bañ tabbi aljanna bi xay bi xayri xisaab wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain waaw barakallahu fiikum insha allah insha allah ala kulli xaal daañu amaat cinq minutes su dee am na laaj bu aju ci liñ doon wax naam bismillah naam teew ndax ki génne deux kilos ndax dana doy waaw loolu day bokk na ca minimum ba boo génnee deux kilos ca minimum ba la am nañu dem bay wax deux kilos cent trois cent deux kilos cinq cent am nañu dem deux kilos quarante grammes am na sax ñuy wax lu yées loolu waaye jàpp nañ daal loolu benn moyenne la waaye nag boo tegoon dara loolee da ngay gis bokk na li gën fa nga xamee ne tey jii boo jëloon quatre personnes yu nekk nga dolli leen benn kilo loolu it day doon lu gën a baax rek quatre personnes lañ au lieu ñu génne huit kilos ñu génne neuf kilos bu ko defee deux kilos ya teg ngir mucc ci xilaaf waaye la chaque ne ci borom xam-xam yi seen nattuwaay ndax ceeb yi bokkuñu poids ak nattuwaay yi bokkuñu poids ndax lan mooy mudd ci l'islam mudd mbokk moom mooy nii nit ku diggu doomu nit ku diggu doomu nga xam ne loxo yi réyul bëpp tuutul bëpp ñu jël sarse ko ba mu fees ñu tuur loolu mooy benn mudd ñu defaat ko ko defee quatre fois mooy sa mooy sa looloo tax nag loolu ci nattuwaay yi muy am tuuti divergence waaye daal jàpp nañ ne ku génn deux kilo baax na soo ca tegoon nag mooy la gën mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam waaleykum salaam wa rahmatullah ndax am na ñuy nangu mburum koor ah kay heure boo amee mburum koor nga teg ko fii nit ñi dañuy jógee fu sori di ñëw naan imam ndax mbuuru koor amu fi ndax chaque année heure boo ko indee bu soobee yàlla dana am ñu ko jël si ñu ko jox wallahu subhanahu wa taala alam naam naam isan subhanaka allahumma wa hamdik ashhadu an la ilaha illa anta ah waaw waaw xam naa wax na lu am solo ñu fàttaliku ne tey jii day la ñuy yaakaar laylatul qadr donte ne leylatul qadr ci weeru koor yépp dañ ko ca war a seet rawatina gën a taral seet bi ci fukki fan yu guddi yi waaye rawatina nag guddi gi ñu jëm waaw ku mel ne obi ibnu kaab daana waat ne maa ngi waat ne leylatul qadr mooy guddi ñaar fukk ak juróom-ñaar waaye nag mi ngi noonu yaakaar yépp daal ci la gën a daje su ko defee lu ci waay man mu de mu baril ko ci julli yaag askar yaag bañ a fàtte la yonent bi dénkoon suñu yaay aïcha allahuma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni yàlla yaay jéggale da ngaa bëgg jéggal yàlla nag ñu jéggal yàlla na yàlla jéggal ñu jéggal suñuy waajur jéggal suñuy njaboot ak bépp julit wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain